asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk waa internet bi ñu ngi leen di siyaare joxaat leen seen wàccuwaay bu baax a baax di gën di feddali suñu mbégte ak suñu sunu kontaante si topp gi nga xamante ni ñu koy topp seen jotaay bi di jotaay yu déglu sa njariñ si seen seen bii di MIG TV yi ginnaaw loolu lépp ñi ñaana leen ñaana suñu bopp tey di leen baalu xaq di leen siyaaraat tamit si weeru tedd wi weeru màgg wi di weeru saxuru ramadaan kon su ko defee ñu wëy ak yéen dugg ak yéen si tomb waxtaan bi ñu bëgg amal ak yéen waxtaanu tey wi nag jëm ci kàdd goo xamante ni day doon kàdd goo xamante ni kàddu fàttalante lay doon ndax mënta ñàkk ci doomu aadama bi ndax sunu borom subhanahu wa taala wax nañu ko ci biir alxuraan mu ne nani fàttalante tey bëri na lu mu wax ci biir alxuraan ya ayuhan naas yaa ayuhan naas yu dul jeex yaa ayuhan naas yooyu yëpp lu muy bëri bëri bëri bëri ñépp ñu ngi yaakaar na eh yéen nit ñi rek lay wax waaye eh yéen fàttekat yi am naas boo xoolee baat bi boo ko toppee dëgg-dëgg ba si biir fàtte lay tekki mu ne eh yéen fàttekat yi kon doomu aadama jëmm la joo xamante ni suñu borom moo ko bindee noonu mu doon koo xamante ni ku gaaw a fàttalee lay doon waaw ndax danoo fàtte suñu démb suñu tey waral na ñu fàtte suñu démb ana lan moo tax mun ñoo bàyyi xel li nga xamante ni si jëmmi boppam moo nekkoon si suñu démb. muy jëll bu mag, jëll bu doy waar jëll bu ñaaw bi nga iblis daane nañu ko sa boram, ba sunu borom génn ñu si saalam bu tedd boobu indi ñu ci géttam bii ngir nattuwaat ñu ba xam dinañ góorgóorlu ba wattani ko li muy tere góorgóorlu ba jëfee li muy digle ngir ñu mën bu tedd koy wax ci biir ya ayyuhal nit ñi ما خرك بربك الكريم لم ورا اللول انا لم موتاخ انا لم لم مو ورا اللول ني ني ني جيم دي ور ور سونو سونو سونو بروم بو تيد بي سونو بروم بو ماغي بي ما خرك بربك الكريم بن بنيف تيف ادنا مونو ور دي جارال ني ور سونو بروم سبحانه وتعالى مو تيد مو ماغي مي nga xamante ni bëgg nañu mbëggeel goo xamante ni amul lenn amul kenn koo xamante ni bëggee nañu noonu nga xamante ni bu ñuy nattu si mbëggeel ñu ne suñuy wayjur di bëggee muy suñu wayjur wu góor wala su wayjur rawatina sax suñu wayjur wu jigéen ñun ñuy bëggee ba nu ko lu ne ndeysaan suñu borom subhanahu wa taala ñun nu bëggee moo raw loolu sunu bëgg waajur wu jigéen jegewul sax bëggu sunu borom subhaanahu wa taala bëgg gi nga xamante ne bëgg na ko mbindeefam yi ana kan positif adduna mi ngi topp ba nu woor sunu borom bu màgg bu tedd bii ngir sunu bànneexu bakkan ngir sunu bëgg adduna ngir topp seytaane mi nga xamante ni سلوك نون بمغلا يالله وحنك أي يوني يوني يوني تبير تيرا بتد بي نينا كات جاب لين نيرك نيوي سيني نو حدون نبينو موي نون بير موي سونو بكان دي جيتو تيغا خامتيني فون جيم نيغا نيغا موم اك سونو بان نيه بيغا خامتيني تاميت ناكو نون اك ادينا اك سيداني gaa yi baax yi saraa ko si seeni téere bindee ko nu ne jàngalee na ko nu ne xamalee na noonu ko nu ne muy ñeent noonu yooyu waaye ñun ndeysaan fu nu toll rek ak saa bu nu jógee rek ñu ngi jox sunu loxo ñu téye ñu nuy diri duñu yóbbu fu leen so ndeysaan lépp dara warulu ko lu dul maa xarraka bi rabbikal karim wor gi nga xamanteni wor war ko sunu borom bu tedd bu mag boobu yàlla mi nga xamanteni allazi khalaqaka fa sawaak fa xaddalaka fi ay surati ma shaa rakabak mom mi nga xamanteni bind na lu ci bindin wu tedd bindin wu sel bindin wu rafet bindin wu mag bindin woo xamanteni lépp lo xamanteni ni war na ko ñun mu tabax ci ci tabax bi nga xamante ni tabax nanu ko mu def ko ci bindin wu dal bindin woo xamante ni dëxëñ na si ñun loo xamante ni mboolem li mu bind lépp li mu dëxëñ si ñun dëxëñ ko si ñun xoolal ni yàlla bindee ci suuf ak ban muy ban ak ndox bind gi ni yàlla bind ñu bàyyi ko ci benn toq man yu mu ni jaarale si étape par étape ba nu ba ba ba ni nga xamante ni ñi la bëggee ñu formé ko ñu mel noonu bàyyi ma yàlla bindee ko ci ban ak ndox jaarale ko ci toq man yu di ko jaarale étape par étape ba ngeen bëgg mu formewoo ko mu formé noonu kon ñoo bokk fi nga xamante ni moom moom moom la ñu jógee muy madda matière boobu ñoo ko bokkale waaye léegi ana lan moo tax ñu wuteeg ñoom suñu borom def si ñun xol bu yaatu xol bu mën a jël loo xamante ni dëgg-dëgg yaatu na yaatu boo xamante ni misaal ko day jafe lool boo leen si xel mu yaatu mu sell mu tedd xel moo xamante ni dëgg-dëgg fii ngay toog di xalaat loo xamante ni ma nga réew ba réew mu mel ni da ngaa jàkkaarloo moom di ko émotionné si sama xel mel ni doo jàkkaarloo si télé boole si waat ruux goo xamante ni ak yaataayam ak màggaayam kenn xamul nu mu toll ku dul borom bi subhanahu wa taala kon loolu rek lu nu ëppalee doomu aadama bayima la ak teraanga yim ñu si booleel bi mu ñu bindee bind jinne bind malaayika ñun ñu mënal ko loo xamante ni nangul ko loo xamante ni ñoom nanguloon ko ko mu jëlee ñu fa teg ni feneen fu gën a màgg fu gën a yaatu fu gën a kawe fu gën a mel noo xamante ni dëggantaan xemmam téef yépp dañuy bëgg a nekk si bërëb boobu yàlla defal ñu ko ñun ñii si nangul gi nga xamante ni moom lañ ko nangul amaana mu teg ñu si bërëb yooyu nga xamante ni kon sunu màggaay mi ngi dem ba mu ne wala xadd karam naa bani aadama muy teral gi nga xamante ni moo nu ko teral ba wax gi nga xamante ni wax na ko ne lépp lu mu bind doomu aadama mooy ki ko si gënal ba sax jën ñu def ñu xalifatullahi fil ardi ñun ñu wëlbatiku topp li nga xamante ni mooy sunu noon yu bon yooyu ba wor sunu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ni moo ñu bind ci bind mu màgg bu tedd bind ñu ci gën kaa rafeti ay melo ana lan la ñuy xaaraat kon delloowaat ko njukkal feddaliwaat sunu kóllëre si moom feddaliwaat sunu bëgg si moom gën a yeesalaat sunu kàddu di yëkkatiwaat sunu kaddu di ko wax waahidun waahidun di ko wax ahadun ahadun di ko xamal ne ko yow rekk yaay yàlla te kenn du yàlla ku dul yow njukkal loolu ak kóllëre boobu lan la ñuy xaaraat jébbalaat ko sunu borom subhaanahu wa taala jëlaat sunu buumu njàm tegaat ko si loxoom bu màggam bu tedd boobu mu jëmale ñu fu nu fu ko soob ñuy jëfe ay ndigalam di wattandi ko ay tereem ndax ñu mën a doon koo xamante ni fii ahsani taqwimin googu ñu sax fa te nekk fa su ko defee asfala saafiliina ga duñ fa mës a jege waaye bu fekkee ne danooy jéem di jóge si ahsani taqwim jëm si asfala saafiliin waliyaasu billahi taala yàlla si suñu borom subhanahu wa taala musal ndax saa yi buñ fa àggee de nan xam ne àgg nañ si mbonte foo xamante ni seytaane sax ci jëmmi boppam ñun ñoo ko gën a suufee moom moo ñu féete kaw di suufee ba toll ak bàyyi may waxutul dara ngay suufee ba gën a suufee ki nga xamante ni si jëmmi boppam mooy sa noon bi gën a mag muy seytaane kon loolu nag bàyyi xel ne mooy dëgg-dëgg war sunu borom subhaanahu wa taala war neen ko waaye nanu jaayante ba loolu mu denc suñuy loxo ba na mën a delluwaat fi nga xamante ni si jëmi boppam moom mi ngi ñu fay woo muy kennal gi nga xamante ni moom la soxla ñu koy kennal ak jaamu ko jaamu boo xamante ni dëggantaan digg digg jaamu la doonte sax munuñu ko matale comme ñu ngi ko bëggee waaye ni ñuy góorgóorlu ba mu xam ni kat ñii de samay jaam leen yoo xamante ni ñu ngi góorgóorlu samay jaam leen xam xamante ni seenu mbëggeel ak seenu cofeel ak teg ma fi nga xamante ni dëggantaan fa laay fa la yéene ñu teg ñu ngi siy góorgóorlu ba ni nga xamante ni doomu aadama mën naa góorgóorlu ba gën a kawe malaayika ñun nanu bokk si ñi nga xamante ni danañ góorgóorlu ba féete malaayika yi kaw ndax bind nga xamante ni bind nañu ko ñu gën a màgg leneen lu dul ñun mu teg ñu foo xamante ni dëggantaan ku dul ñun teguñu fa roy ci gaa yu baax yi di leen xentu di xemmem di xemmem seen jikko yi tedd yi màgg ya di xemmem seen nekk waay yu sori ya di xemmam seen nekkuwaay yu taaru yi seen nekkuwaay yi nga xamante ni dëggantaan lu dul lu set lu seetlu du fa àgg ñu ngi tuubaat bu baax a baax tey wàccee sunu kàddu te di leen ñaanal koorub jàmm comme ni ñu koy ñaanalee chaque jour sunu borom nangoo ñu suñuy koor nangoo ñu suñuy ibaadaat waaye tamit mu saxal ñu si melokaan yi ba nu mën see sax ba faw comme ni ñu ko bëggee wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.